tey dañ ñëw cees pour saytuwaat benn élément boo xam ne que dafa am solo ci dundinu aadama gi mooy nan la ñu jëlee en charge ñenn ñoo xam ne que mënuñoo lire mënuñoo bind ci benn kàllaama mooy li naan analphabète réew mi ci bii tey région bu nekk département mbaa commune boo gis. à mon classe d'alphabétisation mais bu lol amé batay lan moo tax ñu ñëwaat di naan nous saytuwaat alphabétisation bi c'est parce que amna ci biir lu soxé té li a moy ñëpp ñoo que nañ ci alphabétisation bi bu ñuy gëné ci classe bi non lañ leen di bayyi bu ko deux ans trois ans bo ñëwaaté da ngay fekk lepp li nga defoon fay dal di dem lay naan analphabétisme de retour parce que amul environnement lettré bu développer. développé la réflexion yi nañ ci wax autre élément moy que ci année 1990 nous ñu bari l'alphabétisation nañ le ci alphabétisation ak financement yu xaw ba classe yi da doon bari mais tay li ñëk remarqué moy que financement yoy dafa ce loolu itam ba ñu pour réussir politique d'alphabétisation bi ku ci nekk am sa wàll ci parce que éducation droit il faut que aussi ñu réfléchir pour xam que est-ce que lu ñu doon financer alphabétisation on la war continuer rek est-ce que état bi rek moo def est-ce que partenaires yi mais ñi nekk ci biir réew comme niñ ko defee ci yeneen réew ay entreprise ay bénévoles eh, am nañ ci biir réew mi réfléchir ànd ak ñëpp pour aujourd'hui alphabétisation bi am moyen yoo xam que ñoo koy permettre mu laal ñëpp. bo xolaté xoolaatee ñëpp tay nekk des fois ay rencontre dafay am mais nuñu ñu rencontre bi xawna jafé par rapport à beaucoup de choses lu ko xaw def spécifique moy que pour l'essentiel dañu bëgg def ben atelier go xamné ne buñ ca jógee parce que la gën a bëri ci problème yi ñu mën a am solution yooyu hein parce que comme niñ ko daan defee at ñu njëkk ya ñëw on document yi day baax mais mise en œuvre bi mooy xaw sooxe tey nag fu doon fu mu doon sooxe foofu la ñu bëgg attaquer def ay proposition concrète proposition yooyu bu ñu ko paree nag ñu jébal ko autorité yi pour mën a jëlaat saaw gu bees qui permettra à notre pays aujourd'hui vraiment ñu mu a wàññi lu baax a baax a baax góor ñeek jigéen yi nga xam ne mëntu ñoo dugg école alors que mun ñoo bind ci benn kalaama